woy mais Idrissa Seck monsieur Idrissa Seck le président Idrissa Seck mais bi fi nekkee li mu fi def yëpp mi ngi ko def en tant que ministre d'État ak premier ministre alors euh, je pense que en tant que maire lan la fi def ah man de gisuma ko am na lu mu fi def nag te loolu aussi lan lu mu fi def kenn mënu cee jënd Ablaye Wade parce que Ablaye Wade moo ko permettre mu def ko vraiment kenn moo ko cee jënd nag ndax moo ko permettre mu jël ay milliards investir ko biir Thiès mais bañ ko nekkee maire ba léegi li ñu constaté population li ñu constaté mooy bu ko falee keroog la ñu koy gëj gis ba élection ñëwaat kon nag waa Thiès war nañu yóbbu ci loolu ñun nag bi ñu bi ñu fekkante bi ñu cee choisir Idrissa Seck ah ñu dem kon de suñu liggéey gaa ñi ngi def ay proximité ñi ngi dimbali population yi mais loolu la ñu population yi sant à Thiès si ñun ñooy opposition bi donc ñu ngi si nurul mais ci kanam tuuti bu fekkante ni dafa bëgg a continuer nii dañ ko taxaw ne ko vraiment ça suffit bi ci tegu mooy euh, wax nañ fi affaire benn bokk yaakaar Benno Bokk Yaakaar bokk ma ci wax naa ko toujours wax naa ko fépp tant que Benno Bokk Yaakaar parti yi ci nekk ñëpp d'accord ñu ne Macky Sall mooy sen kandida ñu taxaw ku ci nekk organiser congrès Macky Sall mooy seen candidat damay wax ne coalition boobu sincèrul du coalition boobu mooy faat président Macky Sall mun ñu ko nax mun ñu nax réew mi euh, président Macky Sall jox na leen ay ministre jox na leen ay ay ay ay député jox na leen ay ay directeurs ay directeurs généraux kon bilan wu euh, président Macky ñun ñëpp ñoo ko bokk. kon nañu assumé nañu y' a plus de dilatoire possible. élection yi ñëw na nañu di ci président Macky Sall comme seen candidat bu fekkante ne bii bëgg nañ ñun ñu rejoindre benn Bokk Yaakaar mais tant que Macky Sall ne sera pas officiellement candidat de Benno Bokk Yaakaar ñun nous serons en dehors de Benno Bokk Yaakaar. waaw fulum ñoo nañ fi tey biñ fi ñëw gis ngeen yoon bi ni mu mel courant amu fi kooku ñëpp gis nañ ko am nañu problème mu ndox wax nañ ko xale yi am nañ problème mu am na problème mu liggéey alors may wax président Macky Sall di ko lancer message ne ko ñëw nañ fii ci fulum ah PUDC bi nga xamante ne bii moo lijjante affaire ndox ak affaire courant na fexe ba ah fulum bokk ak village yu Sénégal yëpp. li nga xamante ne bii aussi mooy wàllu euh, chômage xale yi muy suñu xale yi nga xamante ne bii dañoo liggéeyul fii bu ñu amee ndox daañu bay te suñ bayee dañ toog fii seen dëkk yi. mais suñ ko deful dañuy obligé dem Dakar ba ñu dem feneen parce que aussi duñ fi teg duñu lekk duñu naan seen parents yi di am ay ay difficulté xale yi nga xamante ni bi aussi ñoom amuñu euh, ci lu ñu jàpp te am nañu jàng wala am nañu diplôme nañu def en PPP mooy euh, donc euh, partenariat public privé état bi fay xale yooyu entreprise yi jàng jël leen jàngal leen liggéey mais suñ ko loolu aussi pour man mën na xeex quelque part terrorisme parce que suñu occupé wul suñu jeunes yi ci liggéey occupé lañ ci jàng ak ci métier mais euh, ñu ay nit ay samba booy ñoo jógee fële wax leen ay waxu dof ba ñu euh, dugg ci affaire terrorisme kon loolu vraiment maa ngi koy ñaan euh, président Macky Sall mu gestu waa fulum gestu encore xam naa ne sax mi ngi ci mooy mu gestu généralement le monde rural